Sene dikkati na ana xale yi doon wax fatal ma foofu jël leen siis ngeen toog tribune yéene kaay ne ma coobal troisième mandat fatt na rapport cour des comptes bi mu mel ni nag président ki Sall dafa bëgg boof daal di waaf ci kaw ay sàcc xool moom Sall ngaar yi lam tooro buur gédee naka la leen di couvrir ba mbanduk askan weeg seenuk làmmiñ du daal ñooñee gaayaa ngay sàkku ñu ubbi ay information judiciaire mbir ma ni tekk kenn defu ca lenn le quotidien le quotidien ne xanaa déggu leen xaayaar ku dégg séeréer rapport bi nag daal dinay tuumaal ay jëwrin jëwrin waaye Ismaïla Madior Fall xamle na ni dooree ko ca Mansour Faye ba ci bépp jëwrin boo xam ne tuumaal nan la ci lii duñ la yóbbu ci kanamu benn procureur le quotidien le quotidien ne Ismaïla Madior Fall la ko wax tribune yéene kaay ne Amadou Ba moom noppub tëx bi la daal di maye ci question d'actualité yi nga xam ne tëmbal nañ ko ko ca assemblée nationale conseil constitutionnel daal di nañ koy saisir le quotidien le quotidien ko Mimi Touré Guy Marius Sagna fukk ci ay jëwrin bëgg ñu daal di leen di yóbbu ci haute cour de justice moom haute cour de dafa amut Walf loo ci manti di git moom Ismaïla Madior Fall moom mi ñuy wooye tailleur de la constitution day jëli mesure moo ko dàq ci réew mi polémique haute couture it moo ko dàq ci réew mi moom Ismaïla xamle na ni gaay yi ñuy tuumaal ma ni la benn procureur du leen déglu Walf ne ma Ismaïla Madior Fall day jël na cour des comptes daal di koy dagajaat ci palaasam xamal ko boppam l'exclusive yéen kaay ne ma cour des comptes nag jébbal ay laaj moom daal di nay war de ci rapport fond force covid 19 moom cour des comptes lam liggéey ay règlement de compte la wala contrôle compte laaj ba samp moom moo di amul ay ministères yu nu jàppee ay ndawal sànni ci digg gaynde ya am yeneen yoo xam ne dañ leen sang ba ñu set puudar leen mapp mappal leen laaj baa nga dooree nag ca ministère bu fonction publique ba nga xam ne ci jamonoom moom Mariama Sarr moo ko jiite woon yéeni kaay bi ne ma compte bi dafa sàkku ci daaj ba Abdoulatif Diallo mu daal di leeral juróom-ñaari téeméer ak ñett ci million yu toftal daanaka téeméeri junni waaye tam mu leeral ab reliquat boo xam ne toll na ci daanaka ñaar fukki million ak benn te biir rapport ba France daal di xidéem kenn gisu ko fa loolu nag di violer règlement yi yéen kaay bi ne ma rapport bi nag dafa mel ni dañoo bëgg nag naj seeyal nguufaan ci kaw ñenn ñoo xam ni ay om politique lañ am ñeneen ñoo xam ni nag dañ leen bëgg setal wecc yéen kaay bi ne lu tax taxal ñiy bàyyi ñii le quotidien le quotidien ne en tout cas Ismaïla moom nee na procureur kenn du fa dem tribune yéen kaay mel ni ku naan maan président Macky Sall day suul ndaanaan troisième mandat bi daal dinay suul lépp loo xam ne ña ngi ko fas yéene woon wax ci rapport cour des comptes leen jëfu ndaanaan gi def moom président Macky Macky Sall ci discours à la bi troisième mandat bi waxu ci rapport bi da koo cof moom président Macky Sall nag saa si tembe bu doon ab carte la mooy maître du jeu wala it saa si tembe moom politique bi da koo nag ci bakkan moom professeur Khadijatou Lafal nekk ca Québec nee na loo ci mën ci waxit situation réew mi saa si tembe président Macky Sall da koo téye ci loxo professeur njagalum ni ko déet capp-cappal ba ñu lay jay dem moo jural golo lii mu nekkee président Afrique yu ci ëpp jàpp ni jël nañ situation bi jàpp ne it ñoo gën a muus seenu askan moo leen jural jafe président Macky Sall na def attention réew mi ko di jeene en tout cas bu bëggee ñetteel bi mandat mënta wax ba président Macky Sall obstacle juridique nekkul ci kanamam moom professeur Babacar Gueye xamle na ni président Macky Sall ñaareel bi mandat di bi mu jëm la nekk saa si tembe pour mu leer l'évidence yéene kaay ne ma en tout cas ci troisième mandat googee ka nekkoon chef de cabinet am daal dinay démissionné ci gouvernement gi moom jiital surveillance bu ASEPEX Moustapha Kane daal dinay tàggoog yóbbal président Macky Sall xamal ko ni nag ñetteel bi mandat bi ngay laaj la sama xel nanguwut bàyyi naa quotidien na ma ca PIT ñu bëri dañoo bëgg bàyyi Benno Bokk Yaakaar l'enquête quotidien na ma ci coowal mandaali waaye tam ci présidentielle 2024 bii fu ci Idrissa yoon boo xam ne tàbbi nag ci ndoddam élection présidentielle yi ñu jógee moom moo nekkoon ci ñaareelu place bi am nag ambition waaye Idrissa Seck saa si tembe dafa fragile l'info yéen kaay ne ma waxal ci au conseil bu collectivité territoriale bi nga xam ne ma ngay sukuraat présidentam kenn gisu ko membre yi installé guñu leen turbine yéen kaay ma boobu tey ate nañu ñaari député yi Massata ak Mamadou Niang juróom benn weeru kaso lañ leen tëj l'indépendant yéen kaay na ma kaso yoo xam ne dañ koy tëdd waaye seen avocat xamle na ni atte ba jaarul yoon ba tax ci ñu daal di soobu te recours yooyee tànk jeexaluñu ko amul lenn loo xam ne mën nañ ko ñàkk tribune yéen kaay moo tax dañuy wéy di nekk ay député Sud Quotidien daal di jox kàddu professeur Ibra Bari Camara mu daal di xamle ni bu dee condamnation yi dañ ko daal di confirmer dañuy ñàkk fayal laaxu seeni mandat député bés bi le jour na ay député lañ yoo xam ne day saa si temb Kébé Cissé ñu toog léegi ñu maasal leen courant ñu jóge ca boo moytuwul muy Barthélémy Diaz Massata Samba ak Mamadou Niang libération yéene kaay ne ma papa Ala Niang saa si tembe mi ngi ci état boo xam ne doy na waar delluwaat na ca l'hôpital principal nanguwul ñu faj ko moom papa Ala Niang te ma ngay wéyal xiifam ga ay jege ñaaleem daal di tiit lool ci papa Ala li ko dal saa si tembe am ci njàqare goo xam ne doy na waar taskatu xibaar yi saa si tembe war a dugg cib lël xool daal di génn colonel Ousmane Sonko ay awakaam daal dina ñuy sàkku ab non-lieu maanaam dossier bi ci boppam daal di jeex bu jeexee it beneen combat mi ngi taxaw ci peggam moom Ousmane Sonko Dakar Times ne ma ndaw yi nga xam ne ñoo nekk ci Sigicoor ay étudiant lan yoo xam ne fippu nañ ci kaw Ousmane Sonko di bajantu direct news ne ma en tout cas étudiant yi day niki démb mayuñ ko dara dañ leen xamal ni dañu leen di génne ci seen résidence bi ñu nekkoon ci Ndakaaru tax na nañu taali pëna sànni xeer ne mer gi yépp Ousmane Sonko lañ ko meral ndax nag moo bëgg dakkal seen contrat laas yéene ne ma sab ko bu yees bi ay ndawit ña ngi koy tuñtuñal ca diwaanu sali nee ñu nag suuf si ci boppam la bëgg ca ca caxatee duñu ko nangu tribune yéen kaay ne ma waxtu woowu lu toll ci téeméer ak juróom fukk ak juróom ñeent ci unité yoo xam ne dañ ca doon soppi gerte moo daal di taxaw ca diwaanu Touba lu toll ci juróom ñetti junni ci nit yoo xam ne ca lañ doon xëy boo moytul daañu tàbbal seen xëy géej chinois yi ci boppam la ñu daal di tuumaal ne ñoom ñoo bëgg gantal yooyu la liggéey tribune sport ne ma coow li coow li mooy nañu wax ci CNG CNG bi nga xam ne gaa yaa ngi def ci làmb ji leen saf mu ne pat mystique yi yàgg lool combat yi guddee lool CNG mel ni na ku ragal mbër yi mënta wax ak ñoom désordre bari lool ci biir arène bi gars yi di caxat-caxatee règlement yi num leen neexee bira seen njiit la ñu koy interpellé suñu làmb moom xëy sampub laaj ndax nanguuru Balla gay dafay bëgg jeex wal Walf Quotidien en tout cas juróom-ñaari saison gi nii Balla Gaye ci juróom-ñett ci combat ñeent yi da koo ñàkk ma nga tàmbalee daanu yi gannaaw ba mu daanee Yékini Les Échos yéene kaay ma loo ci mënti déggit ka ko daan moom ko bi yéen kaay ne ma li soxna immigré yi di laaj bëri na ay soxna lan yoo xam ne mun nu gis seeni borom kër ña ngi cay am xol bu wow ndax saa si tembe ñi ngi ci souffrance yu méttee métti ndax ñàkk gis ki ñuy sëyal ak lu mën a am mbokk yi na nañuy ñaan jàmm te yendoog jàmm